nee na mi ngi nuyu ñi fi teew ñëpp nee na teg nuyoo bi ci loxol sëriñ sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Mbacké moom sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nee na ak booleem mbokk yi ñu fi fekk yëpp muy sëriñ Muntaxa moom sëriñ Modou Boussa Dieng ak Cheikh Silla mi mu àndal ak Cheikh Abdoul Ahad Bousso neena ndax tay sax xamna ne ñetti abdul ahad yi la leen di wax neena tay ñent kon ñent yi taw la ñent yi la leen di wax ak ñi ngeen andal ñepp ci wa muxaddamatul khidma neena cheikh mohammedul muntaha yabal leen fi ngir ngeen taxaw ji kon seigne sulay ñu ngi lay nuyu bu baax neena di rafet lu jëf ji nga jëf ndax lii sëriñ Abdul Aziz seere neena na te moom xam naa ko lu mu wax rek lu mu gëm lay doon nee na moom mii sëriñ Abdul Aziz bokkul ci ñi jamono fëkk nee fekk gii ma ko fekk rek nee na doy na ma seede ci sa dëgg nee na kon ñoo ngi lay sant bu baax di la ñaanal lii nga xam ne jëfal nga ko lislaam jëfal ko sëñ Touba. ne yalla kusun ko suñu borom nang te katanal len ndax neena li am solo rek ci adina neena ku yalla defal ndimbal nga delo ko ci mom neena waye waaye mom limbalul yalla la neena ndax bokku na ci li gëna jafé te mo am njariñ ci adina neena kon bu la ci sunu borom xire neena dañ lay ñaanal rek mu gën la ci ndax neena na rek mo am solo ci adina ne kon no ngi sante bu baax neena di ñaan jakk ji neena ni ko suñu Abdou waxe legi bokk ci la masjidun ussisa ala taqwa neena te loolu rafet nañ ci ndort ndax fi nga ko def ak neena bu ton loolu bu duloon loolu lepp itam ki fi nekkal Serigne Touba neena bu nango jëf ji rek neena nee na yabal fi waa muxaddamatul xidma yabal fi cheikh Mouhamadul Fadal suba moom cheikh Abdoul Khadir nga xam ne moom lépp lu mu war a teew ci wàllu googu rek te munu caa teew nee na la ci yabal nee na bañ ba ku fi bàyyi ko nee na ak moom sax ak sëriñ bi bu ñu demee sëriñ bi ci ginnaawam lay taxaw nee na loolu sëñ bi ab junj rek la ci jublu te neen loolu it leeraloon na ko ndax am na ci boo xam ni nee na dañoo ànd nee na yaakaar na ni booba nee na bi ñuy denc sëriñ Abbas wala sëñ Moustapha samba benn la ci ndax nee na ñaar yëpp ñoo ànd waaye sëñ bi daf ko ni neen li ma ci jublu kat bëgg sëñ Fallu nim ma doye ma na ci ginnaawam ba ñëpp xam ne noonu la doye nee na loolu rek la ci jublu nee na bu ma ko mënee it moom laay jiital nee na kon noo ngi ciy sant bu baax nee na di nuyu Modou Diagne sa rakk nga xam ne waxtu wu nekk moom nga daan yónni ci moom nee na mi ngi lay ñaanal bu baax ci barkeb sëriñ Touba yàlla sunu borom nangu jëf ji te barkeel ko. tabbal ko ci biir liggéeyub sëriñ tubaa bi te sëñ tubaa nangu ko ndax nee ñun taalibi yi sëñ tubaay kat lépp wépp wuñ def at di sëñ tubaa rek lañ ci jublu te buñ ko defee itam nee mooy gën a gaaw ci sunu borom nangu ko nee na jërë ngeen jëf jërëjëf soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane def nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su dara nag dootu la si ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane bëgg publicité ngeen bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg mu siiw màggal jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barab bu communication di ngeen si ànd ak Khadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation jëm si wàllu contacte leen Khadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Kayndé Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 77 325 68 20 xarañ liggéey bu tegu si temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc